ya shirifa Huseenu Laay leeral nga sawtik maam ba nasaraan baa ñëw yoo lay Matar Laay yuxum Mamadu Matar Laay sa maam li maamu li maamu yaay borom yoo fi bay lay wotaaji bu daay lay hiya ma saaralin si wal jinni ni rasulillahi ilaykum summa yu xaddis ibnu xaali daw dunduy fii ci kambarin ma kañ maami sërfu seynu laay nasaran baa ngi wuyoo lay mataar laay sama may mamadu mataar laay